Euh, ginnaaw ba nu santee suñu borom tabaraka wa taala nuy julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba Cheikhul Khadim di ñaan sëñ Sidi Mokhtar suñ boroom yàggal ko fi ba naal yi mu naal euh, mu àggale ko ci sagoom àggale wàllu naal yi ña ko jiitu woon te nu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Serigne Touba. Euh, sëñ Fallou wax nga ko euh, Serigne Touba ca lu ëpp téeméeri at dafa waajaloon lii lépp dafa defoon li ñuy wax plan directeur maanaam dëkk boo xam ne lislaam a tax mu sos ko muy Toubaal Mahrousa mu wa wane na mu war a mel euh, jëfe euh, ca màndarga yooya wax bàyyi fi mag ñi jot ko mu bind bàyyi fi tam jëfe noona bàyyi fi doomam yu tedd yi kenn ku ne ca plan directeur boobee joxoñ ba nga topp ca na mu ko bindee woon nga doxale ko noonu euh, ba mooy li may wax nii plan directeur bi nga xam ne mi ngi ko def ci matlabul fawzayni euh, bi nga waxee ne wa maskani sallim min al fujaari wal na la ahli bi ma in jaari wax nga dëgg ca téeméeri at suñu borom xamaloon na ko ne ko euh, dana am sa dëkk bii dana màgg màgg goo xam ne bu wëtuwul fu jaar danañ fa ñëw Mm-hmm. loolu muy euh, kon lii sëñ mët loo yor euh, euh, ndox mi itam mu wax ci ma ma un jaar mooy ndox muy yol waaye ci biir itam da cee dëxëñaat beneen mbir ndekete kaaraange googu muy wax sëñ mët loo tam bay ci waar wu wéy ci waaram bay waar bay waaram bu baax a baax ci toolu sëñ Tuubaa boobu ndekete ci biir ndox moomu itam Euh, boo ko naree doxal danga jaar ci kaw fu jaar wala fu jaar jaar sa kaw loolu bi ma nekkee ci yor ndox mi laa door a xam ne sëñ Tuubaa suñu boroom da koo déy loolu bayit woowu mënoo koo xam mukk te jaaroo fi nu jaar kon nun xam nañ ko bu baax muy Malick Badiane mi nga xam ne mooy administrateur euh, di Dame Dia mi nga xam ne moo ko soxna as moom sëñ Abdou borom dër bi euh, ñoo yor kuréelu jaayante yi di sang faal mi nga xam ne borom saret yëpp moo leen yilif tamit treize mille trois cent charrette ci Touba te waxtu nañu koy feddali euh, di itam euh, Modou Assane Ndiaye mi nga xam ne moo moo moo Fall Mbaye ñoo communication bi ak ñeneen ci Maou Rahmati yëpp ñii buñ fi teewee ak sëñ Moustapha Moussa kon loolu nga wax dëgg la waaye itam sëñ Touba xamoon na ne Touba ndox mu naqaree ne ndax bi mu laa nee maa un jaar da caa yemul dafa wax as xaytanaa xayra miyaahin yartawi charibuha wa xayra fawzin yaxtawi te loolu lépp li may wax la gën a jafe la jël yóbbaale bàyyi noog lu gën a yomb ki lay ñaanal lii te mu wóor na moom jariñoowul ndox ma alhamdulilah kooku yomb naa liggéeyal kon ki lay wutal ndox doo xam fu mu ko jële doo xam yan pexe la jaar doo xam nu muy def lu muy daj guddeeg bëccëg te mu wóor na mi ngi ciy sonn ngay am ndox mi ci sa biir kër boo ubbee rek ndox mi tasaaroo war ngaa sant sëñ tubaa waaye war ngaa sant fa ko sëñ tubaa jaarale ba mu agsi ci yow te xam ne tawu ko ci asamaan si xaalis a ko def ay pexe koy def ay xel a koy def ay xalaat a koy def ay moyen koy def ay volonté koy def waaw ñu am pas-pas ñoo xam ne dañ caa jàpp te loolu lépp ndigal ko lal muy ndigalal doomu xaadimu rasul di sëriñ Saliou Mbacké tàmbalee ko ci ña nga ko wax na ko waxee ci sëriñ Abdoulaye Lahat ma nga xam ne moo waral lépp te duñu ko fàtte mukk kon alhamdulilah loola ab tegtal la leetar bu mu bindoon la sëñ Saaliwu jot leetar ba jàng ko jëflu ko sëñ si sëñ Cheikh Mamadou Lamine Bara wéyal ko sëñ si di Maxtaar ñëw ñëw dëggal ko ba ñu tàmbale woon ci barkeelu jaar ci warlu ba tey ñëw ci e, jaayante nga xam ne murit amul lu dul jaayante kon loolu yaakaar naa ne yooyu yëpp ku ko mën a muñ dégg nga di ci jariñu danaa la poser benn question ndaxte ndax ban tàmbalee ba léegi ku ciy jariñu ci wàll googu te na ko sëriñ bi bëggee àndoo ca defoo ca ndax booba ba léegi muy fukki ak nangam ndax sa julli gan fa julli nangu na wala déet ndax la nga fi jëfandikoo ci xéewal lew na wala déet loolu boobu maa ngi koy maa ngi maa ngi posé question boobu ñépp te lu yomb la xaadimu rasul wax dëgg yàlla yomb naa liggéeyal joxe na tegtal bi jaar na fa mu war a jaar liggéeyal na muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam lu ko kenn liggéeyul lépp mu liggéeyal ko boromam jaayante ci suñu borom jëf lépp bàyyil nu yóbbaale la gën a jafe loolu ku yombal liggéeyal yéene ñëpp jàmm en foofu tuuti ndax daay jéggal ñëpp yërëm ñëpp irham jamel wara kon kooku yaakaar naa ne war na jàjjuwaat te bañ a nax suñu bopp géej na maa wax ci waxi ndox ndax luñ ci waxul amul xam sa Pastef ci Serigne tubaa ak ni ngay liggéeyale Serigne Touba ak ni nga fonki Serigne Touba ak ni ngay xeexale yoonu Serigne Touba ngir dara ci sikk da cee amul ah, te ñu bare bari seetaan ko loolu moo tax man nangul la wax ji may wax nii tey xam di la ci sant bu baax ci la gërëm di la yónni ci Serigne Cheikh Anta Mbakke ci mbaaxam ci yaatalam di ko sant bu baax di ko fedd bi sama mbokk ak sama gëlëm kon ñu dem ci ndox mi moo di euh, li ñuy def moo di ñuy xamee day ci la ñuy jëriñoo ku mel ne sëñ Mandiaye Jong defal nañu ñaari forage alaaji sëñ Guèye ñu ngi ñaan ñëpp ñaanal ko na ko yàlla yéege ci àjjanay firdawsi lu mu masaan am ndoxum sëñ Tuubaa mi moom xamoon na li may wax ni ndox mi la ko yéene moom la ko daan moom ci la daan def euh, ginnaaw bi am na koo xam ne taalibe sëriñ Tuubaa la xalaatam yépp mi ngi jëm ci sëñ Tuubaa def na fi forage te mi ngi am yéene lépp lu mu yëkkati defal ko sëriñ Tuubaa te mi ngi koy def ci yeneen wàll kooku itam mm, waxul turam waaye ñi ne ko ñëpp ñaanal ndax forage bii day ñu gas nga xam ne mooy rahmatul ahad rahmatul ahad waxin la man naa ko tuddee sëñ Abdul Ahad ndax yërmande jë te it rahmatul ahad dafa delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala teen boobee nu gas te kooka gas ko ren jii day hôpital bi bi hôpital bi paane ci lañ ko branché nga xam ne kon woo naa ko ne loo amoon ci tuyaaba na nga xam ne yokk na ndax boo am boo gasee forage ñu yóbbu ko ci hôpital xamal ne loola yokk na kon na ko ñëpp ñaanal euh, gas nañ fi ñeenti forage am na bu ñu gas jëkk gas Daaru am Darma dafa am ñaari njariñ mooy bis bu ñu fay def prospection man am am projet lan fa amoon bu juróom benni forage ba sëñ bi ma waxtaan ak moom ba mu ànd ca xam ne un milliard neuf cent millions la waroon doon wala deux milliards la jege waaye yàlla dogal euh, bii nga xamee ne ndox euh, mi manqué na ci Touba ñu ne ñun kat bala noo defal ci bitti lii ni ndox mu neex mii fi ne nañ ci jàppandi fexe ba matal ko ndax lii dëkk Touba dafa bari loo ko solal ren bu nee boo ko sololul ñaaram daanaka euh, la ko jëkkaloon soloon du ko jot moo tax ñu ne kon nan bàyyi di loolu en waaye itam ci biir loola itam am na cay gàllankoor ñu ca defi gàllankoor àddina saa yooyu wàqi rek euh, ngir jot ndox am na ñuy suul ba léeg-léeg sax fi ngay wàqi boo ñëwee montagne nga fay fekk loolu rawatina fii la fii la samp tànkam moom fii ci dëkk bi loolu daf feebar yi te euh, mooy dëkk bi nga xam ne dong ci àddina boo doon seet ci sur le plan mégalopolis ci ni ñu ko ni ñu ko lotissé moo yor quatrième rang mondial ci lotissement bu rafet nga xam ne kon sëriñ bi làmbatuwul woon ñim fi bàyyi itam yafu suñu kon alhamdulilah bu yàlla defee nga dëkk fi ci ñëw fi suñu borom may la xéewalu nga mën fee ñëw da ngaa war a tànk topp tànki ñooña waaw topp seenub joxoñ ci wàllu googu kon léegi ñun ñu daal di indi ndox mi fii lañ waroon def foofa ñu far def ko fii ngir mu mat yamuñ ca loola ñu ne dañ koy neexal ndox mi ndox mi eh, naqari na te baaxu la naan baaxu la naan léegi nga xam ne ndox ma am na léegi teg nañu ci loxol nit ñi ndox muñ mën a naan sañ nañoo wax ne kon ndox mee baaxul la naan waaye nag feeg teg defuñu ko woon bëgguñu woon a ragalloo kenn kon nag léegi ñun lañ ci jublu tey dañ ko homologué la muy jar ci buntu jumaa ja lay jar ci bitib dëkk ba lay jar fu mu mën a doon ci dëkk bi loolu lañ bëgg te ñeenti fifteen ba ca maa on rahmati di am ñeenti fifteen jariñul dara ba ca des lépp dañ koy boole ak li nga xam ne dañ koy jëlee ci dëkk yi ci diaspora bi ak ci feneen kon dëkk bi nga xam ne ñooy naan ndox mi téeméer bu ne fukk ak juróom rek lañ fi def te fukk ak juróom yi ñu koy def moo di sëñ Dame Dia kuréel bii mu yor ak soxna Astu muy jaayante yi juróom yi juróom yi pour cent yi 5 pour cent yi mi ngi jóge ci dëkk yi ko wër 80 pour cent yi mi ngi jóge ci diaspora bi noonu la demee euh, yàlla dimbali ñu am xame yoo xam ne ñu ngi ciy jàppale ba ñu gas fi yeneen muy ñeenti forage yooyu ma leen wax benn bi ñu ngi ko gas daaru su am tam li ci doon gën mooy màggal ni mu demee ak importance bi mu am ci Sénégal ñu gasoon ay forage yoo xam ne dañ koy gas denc ko bu màggal jubee ñu taal yi yëpp bu ko defee bu màggal weesoo ñu tëj loola seet lu dëkk bi aajo lu yem ak la ñuy jëfandikoo ñu yemale ko ca loola loola defe naa moo doon idéal idéal nag mooy la nga bëgg la war a am moo xam man naa nekk moo xam mënta nekk waaye loola moo gënoon waaw waaye teewul itam gouvernement bi def effort yu am solo wax dëgg yàlla foo xam ne vingt forage nga fa vingt forage ak suñu quatre forage yi tola waaw vingt vingt nangam forage mu ngi fi vingt quatre forage yooyu yëpp di dox cent pour cent waaye dafa fekk ne li ma waxoon dëkk boo xam ne recensé wuñu ko la nga war a jëkk def mooy booy wuutal dara da ngay xam dara joojee ni mu toll nga door a mën a wut la mu la mu yellool bala ngaa mën a wut la mu yellool nga xam na mu toll ginnaaw soixante-dix millions soixante-dix mille soixante-dix mille mooy chiffre officiel yi ne Touba mais man quartier yi ma dëkk rek ëpp na soixante-dix mille ëpp na ko kon ñi ngi xayma Touba ci ñaari million boo demee ëpp na ko boo demee ëpp na ko prévision boo koy booy def projection da ngay def ay prévision da ngay def ay recensement xam ni mu toll loolu moo mën a mooy gestion bu wér boo xam ne danga nga mën a waat ni lii kat nii la toll war naa ko wutal lu toll nii lu yoll ak loola loolu nag da cee amagul xëy na dana am bu ko defee euh, noonu noonu la demee ñu jéem a seet naa lu toll noonu ci ci forage ñu yokkaat ci ñaari piézomètre yoo xam ne dañ ko ci yokk mooy bi wetu nekk ci wetu Baxdaad nga xam ne tuyau bi may jële woon Baxdaad yóbbul ko sëñ Cheikh ca bi ma jële woon Tindodi yóbbul ko sëñ Cheikh ci ci ci ci Baxdaad nga xam ne ku baax a ko joxe woon ma jël ci ñaari kilomètre jox ko piézomètre boobu dama ko jógee 500 mètres la dañ koy jël rek raccordé ko maali a ngi nii xam ne li ma koy wax dañ ko ciy raccordé rek mu yokk ndoxu Baxdaad ci màggal gi piézomètre beneen bee ci sama tool la nekk ma nga ca Ndiiso booba itam defoon nañ ko potence boo xam ne dañ caa waroon a root di yóbbu Touba ren jokkal dañ ko war a jokkale ak réseau bi moom itam bu màgg gi jotee ñu def ko ca kon mën na maa wax ne 24 forage ak forage bi nga xam ne moom la Malick wax ne dañ ko dañ mooy bu sëñ Abdou bu jëkk ba te ñu gasoon ca wet ga booba euh, buñ ko ci yokkee ak yeneen ñaari piézomètre day mel ne vingt 27 forage mais euh, daaw jéeg ak daaw forage yooyu yëpp a ngi dox te taxul ndox mi doy kon mënuñoo weesu lu toll noonu ci forage defukaay yi moom wax dëgg yàlla ëpp na ndax balaa defukaay balaa dem ci defukaay ba rek nit ñi naan ko kon lu ko waral mooy yàq gi yàq gi ak bën bën yi fu neex waay gas bën fu neex waay euh, def branché te doo tàggoo te branchement yi du baax tàggoo gi lañ ci gën a soxal dëgg la am na loo ci joxe xëy na waaye lañ ci gën a soxal mooy matériel ba nga fay def mu baax ba boo liggéey du yàqu loolu moom ci gën a soxal waaye kenn du ñëw dañuy nëbbutu ko def ak i sañ-sañ yoo xam ne doo xam fu mu jóge sañ-sañ rek la ñuy doxee ci dëkk bi sañ-sañ rek loolu moom bokk na ci sunu gàllankoor yi léeg nga gis sunu waa yi ñoom ñi yebal kenn fenn waaye dañ leen di bantal ba nga xam ne te kat lu ñu génn ci mbedd mi rek la ñuy yem loolu yëpp dañuy am ay jafe-jafe wala ñu bëgg a def benn maillage fenn bëgg koo jaaree fenn boroom sañ-sañ jóg ni fii du fi jaar euh, naka lay baaxee dana jafe euh, ñun ñëpp noo ko sédd noo ko bokk danoo war a delloo si xel yi xam ne Sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal kenn ku ne sa wàll ngi ci loolu lañu war a maandoo kon gouvernement bi ñoo ngi koy sant bu baax moom itam ndax électricité boobu lu lu baree bari la xaalis bu dul jeex la ci électricité bi nga xam ne mooy mooy doxal forage Touba te loolu gouvernement bi moo ko jël en lépp loo xam ne itam pièce de de électromécanique la ñun ñoo koy jël en charge ñooy fay lépp équipe bu fi ñëw ñoo lay jël en charge euh, lépp maanaam bu dee ndox mi camions yi ñoo lay wutal ndox mu neex fekk la wutal la bassin bassin bi nga xam ne moom lañu daan def ndox bàyyi nañ ko léegi sax ndox mu ne su ko wutal ñëpp dañ ko jotoon a jox sax lañ ca waroon a joxe joxe wuñu dëkku dëkkub euh, gratuité daal la nekk te loolu munte ne li may wax gratuité mën na su ko rentabiliser mën su ko gérer daanaka waaw gestion biñ ci yàlla may tawfeexu suñu borom ak ñaan ak sëñ bi lañ ci am waaye war woon a mën a ne loo xam ne kenn du ca fay dara te yow mi koy def looy bu xëpp la dégg nga te doo ca jàpp te ku ca war a jàpp nga yàqal ko te yow ma war a defar yaay def loolu yow mi nga xam ne yaa ko moom yaa war a yaay def loolu kooku foofa def fa dara woo a mën a nekk waaye nag sëñ Tuubaa la mu ji eh, mbindeef yi eh, la mu ji suñu borom tabaaraka wa taala ji ko yonent bi looloo ko tawféexal ba lu mel noonu mën a am waaye bu doon beneen dëkk loolu du mën a am kon alhamdulilah ñu delloo si xel yi eh, te xam ne noonu rek la la la li li ñuy gën a wax nit ñi nag mooy ñu denc ndox ndax li ma leen wax. lu mat ñaar fukki forage ak ñeent ñu dolli ci ñetti yëfandikukaay ciy forage wax dëgg yàlla euh, te du tax mu doy kon na kenn ku ne waajal wut foo def ndox te foofu mën a ubbee te ndox ma bañ a gaañ bañ a lor kenn mu nekk ndox mu sel nga xam dañ ko ub ba benn benn luy lore du ci dugg loolu itam wax nañ nit ñi ren ñu fàggandiku ndox mu mel nii yomb na rek bu màggal jotee yow nga bënn bënn yee di dem fluide yi di dem ñëpp di sonn guddeeg bëccëg personnellement wala ma ci du nelaw guddeeg bëccëg saa yoo yeewoo boo amul ndox rek daal di jël rajo bi wax lu la neex saaga xultu te yow defoo ca dara ah wax dëgg yàlla boo yaakaar ne dañ laa tooñ yàppal ne yaa tooñ sa bopp waaw te sag tooñ it metti na tooñaale nga ñëpp tooñ nga yàlla tooñ yonent bi tooñ sëñ Tuubaa mi ci def lu te defoo ca dara te ak ñàkki joma nga ca ndax dangay naan moomoo ko waaw loo jàppee wala nga lekk ca wala nga naan ca te moomoo ko sa xol seddu ca jàppal ne riba la riba loolu nañ ko ñëpp xam waaw loolu riba la bu wér wér nga xool ñaata at nga ko def bu ko defee xëy na man nga koo calculer ba jotaat ko boo ko mënee jotaat nga jéem a ñëw jotaat sa bopp ci wàllu googu te xam ne bi su ñu la tëralee ci kuusu bàmmeel ne la cayi ca ndox moomee yaraa nga dong lay doon bu wér wér waaw kon loolu nañ ko xam bu baax a baax waxtaan wax dëgg ca Euh, route de Tundodi itam euh, képp ko xam ne am nga sa camion jàpp naa ne boo ko fa yóbboo sa camion dana yàqu ndax amul yoon dëkku sëñ Modou Moustapha bi nga xam ne bokk na ci dëkk yi jëkk am ci àddina ñu di ko seetaan ba ndëgën ni defaruñ ko wax dëgg yàlla jekkul jaaduwul rafetul yellul yellul waaw yellul kon te forage ba dem na ba ca wetu dëkk ba kon yaakaar naa ne man déggaluma kenn donte 6 million de litres ma nga ca euh, réservoir boobu moom boo fi boobu moo fi nekk ak bi nekk Daaru Tanzil ak bi nekk Rue de yooyu ñoo fi nekk lépp ñu boole ko xam ne sëñ Touba moo fi nekk ni ma koy waxe euh, mooy garab gi ay banqaas nag am na ak i cal fu fi waaye jàpp rek jàpp nga sëñ Touba mm-hmm. waaye dem ci bànqaas di ko roose wala ngay jafandu ci xob ba xob bay daanu boo ko defee yaa sa bopp nan roosee ni garab gi mooy garab gi muy sëñ tubaa nu nangoo teg ci ker gi mu yiir nu muy sëriñ tubaa yàlla na ci yàlla may tawféex te e, fayal nu ko bi jaahi seydil wujud ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala